ci teewaayu njiitu ci tribunalu grande instance bu Pikine Guédiawaye équipe Seneweb nag indi ci ab leeral jëm ci dogal bi nga xamante ni procureur daal dina si jël moom nee na dina ci mën a ak enquête bu takk goo xamante ne daal faw ñu leeral ñi nga xamante ne ñoo soob seen loxo ci Fatum Aziz Dabala ki nga xam ne rek mooy Wally ak Aziz Dabala retour de parquet ci ñoom ñaar ñu ñi ñu fas yéene di ko amal daañu ko clôturer enquête bi juróom benn nit yooyu nga xamante ne rek na bu lay jot na ci si dëggan ci fas nag bokk na ci ñi nga xamante ne rek dañ koy kii yokk nag seen i kaaraange ndax jamono ji police ak lépp lu ñu mën a def rek faw ñooñu nga xamante ni dañuy jàpp ne seen loxo génn ci Fatou Aziz Dabala faw rek ñu sàmm leen moo tax tey jiifale fale ca tribunal Pikine ak Guédiawaye daanaka anam bu ñu leen fa yóbbee jaaxal na askan wi ndax dañ leen a sàmm aar leen ba kenn mënul identifier ak kan mooy góor wala kan mooy jigéen suspect yooyu sax nag ñu topp leen lu jëm ci association de malfaiteurs lu jëm ci crime ak yenn préméditation yoo xamante ne acte de barbarie ak lépp lu jëm ci faat nit mu ngi xewee ci technopole bi loole sax jamono ji àdduna bi yëpp nag di ko waxtaane mu jur ab coow lu mësta am fii ci Sénégal jamono ji nag retour de parquet bi dinañ ci bénéficier wu tamit beneen retour de parquet ñu déglu leen rek ba xam ndax ñoom li tax ñu teg leen loxo dañ ci dugal seen loxo waaw wala déet lu yàggatul dara rek dina leer ci boppu askanu Sénégal ñu àddu wax ci wàllum faat yi ñu nemmee ko fi ci Sénégal ginnaaw ba ñu lijjante kaw Aziz Dabala bu sotteegul beneen jee daal dina amaat fa nga xamante rek moo di Grand Yoff benn waaye la ñu tiire ab bal ba mu génn àdduna moom mi sax ma ngay wuyoo ci monsieur Diallo moom it dañ ko yóbbu ci hôpital général bu Idrissa Pouye mu jura ñàkk bakkanam ginnaaw gaañu gaañu métti yi daal dina ko am policier bu commissariat nag bu Grand Yoff ñoom ñu ngi woon ci pied d'œuvre ngir fas yéene rek déterminer circonstances yi naka lañ ko fàtte ki nga xamante ni moo ko def lu nu mel ñenn ci ñi nga xamante ne fekkee woon mbir mi jot nañu xam ne rek ni benn agression la waa ji da doon sauver benn waaye buñ doon agressé ñu mujj ko rek daal di ko tiire bal Amidou Diallo lay wuyoo dafa dal di recevoir benn bal lañ ko tiire loole war a sax nag moom mi nga xamante ne mi ngi doon dem ngir sauver ku ñu doon agressé buñ sukkandikoo ci kenn koo xamante ni dafa dëkk ci quartier boobee sax nag daal dina sédde lu nu mel mu mel ni nag wàllum faat mi ngi gën a bari fii ci Sénégal ana ban taxawaay nguurum Sénégal di si fi lii di peine de mort di ay kàddu ñi nga xamante ne teewe nañu lu jee yi nga xam ne jot na am jamono ji peine de mort ndax buñ ko fi tegee ndax duñu mucc ci lu nu mel jamono ji mbiru Aziz Dabala ak kii di wàlli ba tey sotteegul ndaxte jamono ji nga xamante ne ñu ngi wax ak ñeen ñii juróom-benn nit yi ñu jëkkoon loxo yóbbu leen ca commissariat fa nga xamante ne ba noppi ñu ngi doon yobbu ca tribunal bu Pikine Guédiawaye ngi fas yi ne dékkoog ñoom ak ni di procureur mu doon loo xamante ne jëye la bu mas am fii ci Sénégal ndaxte coow bu mu jur bari lu ci laxasu yeneen jëye daal di amaat fa nga xamante ne moo di Grand Yoff ana lan moo daal askanu Sénégal lan moo xew ndax jotul ñu seetaat suñu bopp jubbantiwaat xel yi te balante ak dafa mel ni askan wi soxla nañu ndimbalu yàlla waaye tamit ñi nga xamante ni yàlla may leen xam-xam ngir yeddaat nit ñi delluwaat leen ci suñu yàlla suñu boroom ñu daal di door ak yéen ci xibaar yi mbokk internet info 221 wax rek nag ci benn kaar Ndiaga Ndiaye bi nga xamante ne dafa daal di këppu ca boru boo maraîcher ñu bari nag jot nañ ci am ay gaañu gaañu waaye tamit bloqué ne dem bi dikk bi ni ki tey jii si talaata bi yem ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ut bi ñu nekk accident la boo xamante ne mu ngi amee ci autoroute à péage bi nag ci diggante ay AIBD ak dakaar buñ sukkandikoo ci xibaar yi nag lii ñoom ñooy ko fësal ci ab communiqué nee na benn car transport en commun boo xamante ne dafa ñàkk nag maîtrise am moo daal di këpp ca booru boo maraîcher ñu bëri jot nañ ci am ay gaañu gaañu waaye tamit nag yoon bi dem beeg dikk bi dana xaw naa sooxe as ñi nga xam ne ñooy sapeur pompier ñëwoon nañ nag ca bërëb ba ngir fas yéene dimbale ñi nga xamante ne ñoo am ay gaañu gaañu waaye nag dem dëkk bi daal ci ñaari boor yëpp dafa taggatémbe wax nag ci leneen ci xibaar bokk ci tontu bi nga xamante ne euh, Thierno Bocoum daal dina ko fësal moom mi la sax nag nee na mu ngi ñaawlu ci convocation bi nga xamante woon nañ ko assemblée nationale euh, jiitu réew mi Bassirou Diomaye daal dina ko def nee na nag moom loolu stratégique la boo xamante ni dañ ko fi teg ngir rek daal di faagaagal Thierno Bocoum adduna ci convocation bu ñu def assemblée nationale maanaam député yi ci section extraordinaire moom jiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye nag mi ngi daal di nëbb benn dessin boo xamante ne daal mi ngi koy def solo si rek moo di fas yéene waxtaan ci naka la ñu def ngir dàkkal maanaam jëlee fi lii di conseil économique social collectivité territoriale bi nga xamante ne daal ñaari entreprise yu amul benn njëriñ fi ci réew mi ñoom njiit yu fi nekk jàpp nañu daal ne dañ koo war a tas jëlee ko fi te nag koy def dañu war a xalaat ci nit ñi ndaxte nag ñaari entreprise la boo xamante ne daanaka lu ñu ŋànk ci xaalis toll na ci fukk ak juróomi milliards ci suñu koppar bu ñu ko tasee koppar googee fan lañ koy def loolee tax nag seen bokkum di ko ñaawlu jàpp ne nguur gi fi nekk nag dafa bëgg rek a tas foofee waaye nag jamono ji war nañu ci indi ab leeral ci askanu Sénégal jamono jooje nag kii di Imam Ndiaye mi ngi tontu Alioune Tine mi nga xamante ne dafa àddu ci njiitu réew mi Bassirou ay Faye moom nag nee na Imam Ndiaye nee na ko kii di Alioune Tine dafa war a dem rek jël retraite kàddu yi mu yëkkati jëmale ko rek nag ci ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye njiitu réew mi ak Ousmane moom njiital Afrikajom Center moom nag tax na Imam nag Ndiaye di si àddu ci matinalu Seneweb niki tey ji Imam Babacar Ndiaye jot na si joxe xalaatam la mu xam le nee na Alioune dafa war a dem rek a jël retraite am ndax fonction nag permettre ko mu yëkkati yenn kàddu yi di ko jëmale ci nguur gi ndaxte xam nañ ne moom mi accès ak lépp la ci àddu dafa war a noppi ndaxte nag amul droit nag di xas wala nag di jéem a jàpp ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye dañ ko confiné ca palais ba lépp luy dox nag Ousmane Sonko moo koy doxal ñeenti waxtu yi nga xamante ne war na ko mu négocier ci ci jàmm ak salaam diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall waru ko jox nag droit mu yee yeppi di wax yenn yoo xam ne waru ko lu jot nag jamono ji bu ñu sukkandikoo ci imam Ndiaye moo di Alioune xamante ni dafa war a jëm rek retraite noonu la ko daal di gisee jamono jooju nag Seydi Gassama moom mu ngi daal di défendre bu baax ki nga xamante ni moo di Alioune Tine ndax ñoom ñaar nag dafa nekk ñoo xamante ni ñoo fee xaar lépp lu jëm ci àq ak yelleefu nit ñi mu koy jàppale ne nag lu mu wax du xaalis mooy tax muy daw lu muy wax daf ko wax te teg ko ci yoon kon nag Ousmane Sonko nu muy gouverner dafa mel ni moom mooy njiit jamono ji nga xamante ni Bassirou Diomaye Faye ma nga ca ba Alioune Tine nag kii di Seydi mi ngi koy daal di di jàppale ndaxte gis nañu ñu bëri jot nañ ci addu ci kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci doxale ni nguur gi fi nekk professeur université nag jot na diriger association yu bëri waaye tamit jot na fay luwaaye ci siège yu bëri yoo xamante ni mi ngi ci liggéey te xaaru ci benn nguur kon nag tey ci am na xalaatam sañ-sañ xool nguur gi nu muy doxee mu daal di si joxe xalaatam